jëmee ci turu sëriñ bi ak ci turu yoon yu bari nañu waaye ñi ci ëpp dañu ne ci biir yoon yi rek di wax waaye waxaluñu yoon yi waxaluñu sëñ bi maanaam ci lislaam rek la ñuy dox ci la soññee lislaam lu baax la ndax mooy ndey lépp waaye nag sëriñ bee tiim lislaam murit yi ñoo tiim julli ji ndax sëriñ bi dafa gën a jamono fekk ay waajuram ne ci lislaam du weex tàll set wecc ñu fekk leen si ànd ci ak ñoom waaye loolu su doyoon sëriñ bi di ko génn waaye ci lislaam jooje ci la sëriñ bi taxaw ba ñu newoon ci ay waajuram ñëpp xemme ma topp ci moom ba waajuram suy jàngale kenn ku ne si ñoom wut yitte bu sëriñ bi jàngale kenn ku ne bàyyi si yitte ngir njàngalem sëriñ bi gën a jot gi mu gën a jot ak gën a leer gi mu gën a leer mm-hmm. ak gën a gàtt gi mu gën a gàtt ci ak dégg mm-hmm. waaye sëriñ bi xam ne lii doyut mm-hmm. mu sàkk ci boromam mu dimbale ko mu dimbale jàll rasulullah sallallahu alayhi wasallam ko xamal ko ne ko li nga bëgg ci ñoom njàngu kese mënu leen ko may ak murit moo leen ko mën a may sun borom nangu ñaanam googee yabal Cheikh Ibrahima Fall Baaba Mouridina ngir mu ñëw lii Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam digal Sëriñ Tuubaa ci bindee fii mu jàngal ko bindee fii maanaam Cheikh Ibra bokkut kenn kenn kenn ci ñu toppoon sëriñ bi ndax ñu toppoon sëriñ bi dañoo ñëwoon ci Maam Moor Anta Sali ñi fa jëkk di jàng fa moom ñenn ñee mag sëriñ bi ñen ñi ma ak sëriñ bi ñen ñi sëriñ bi mag leen tuuti ñok sëriñ bi ñu ànd di sëriñ bi gën leen rafet aw njàngin gën leen ko dégg mm-hmm. ba ñoom li ñu waroon di jang sëriñ bi raw leen ba di leen ko jangal mm-hmm. ba ak gënañ ci ñu jangam maam Mor Anta Sali ngeen jangum sëriñ bi ni mu gën depp ak ñoom <coughs> maase gi maase ak ñoom ak niñ koy mëna dégg mm-hmm. ndax maam Mor neexul won dara ci nangul ko ko laaj dum la wax rek dang koy dégg boko déggul ñak nga kenn du ko laaj sëriñ bi nag lu mu la wax doo ko laajaat ndax day leer nañ <laughs> waaye loolu lépp nag doyut woon lim leen yéene lii doyu ko ñoom it xam nañ li ñu bëgg mar wiñ mar ndox mi mu yor mën mënu leen a màndil sëriñ bi am yéene ci ñoom suñ borom nangul ko yéeneem joojee rasulullah sallallahu alayhi wasallam digal ko mu jàngal leen ak murid digal leen ko sëriñ suñu borom yabal Cheikh Ibrahima Fall Babul Munir ngir mu ñëw ñoo ñii ci Ahmadu mu jàngal leen ak seex Ibra doonu luñ koy taxawaalu mm-hmm. dañu woon dann boromam ba teg ko loxo mm-hmm. lu ñuy def ci lislaam Cheikh Ibra ci mënoon waa lislaam mm-hmm. ndax bu dul tabaski du bésu korite Cheikh Ibra daa woon mos dugub bëccëg koor la daan dëkki daa iman Cheikh Ibra gannaaw julli farata yi guddi gu ne téeméeri rakk la daan naafila sëriñ bi lim santaane moom mu raw ci gaa yi mooy ku aju ci moom di jàng ñaari isib ak nisif boo ko mënee naafila moo ko gënal Cheikh bi kaamil la daan xatmu bis bu ne Cheikh bi turu yàlla yëpp tur wu ci ne topp na ko ba yegg rëkk ci baramam delluwaat fa mu tàmbale woon fabat weneen tur nga xam ne daa dem ba sës rëkk ci boromam sës gi mu sëkk sës rëkk ci boromam te boromam kàddoom raw na ko ndax jox na ko ahmadu ba noppi te ñaari jant duñ fenkandoo mu ne mu ne mu ne rëkk Cheikh Ibra ne ko ahmadu mooy sa kilifa mooy sab sëriñ wër ko ba gis ko ba jox sa bopp loolu wax jooju rek daa doy ci ñoo xam ni Seex Ibra bokkut ak ñii ndax kenn ku ci ne leneen na la indi woon ba nga gis fa lu gën la nga doon wut nga far ko toog topp ñi ca des dégg na lu lañ doon wut fu ne lu ko gën a nga barab sàngam ñu daw ñëw bokk ñoo Ibra Ibrahima ndax moom dane mos nay xibaar ak jébbuloom bay wax ne yàlla mi ko moom moo ko ne Bàmba moo la moom raasi ko jox ko say fexe ku yegg ci suñ borom di la digal nag doo ko daw mm-hmm. dafa wax ne yàlla mi ko moom moo ko ne bamba moo la moom raas ko jox ko say pexe mm-hmm. kooku kon maanaam loolu kenn nattable ci ne yegg na ci boromam ca maroon ak moom ndax yegg ci yàlla rek yeggut foofu ndax sëñ Adama Gueye mag ñi daan nañ daan nañ coow yegg gi mu yegg ci yàlla ak martabaam ngir Adama Gueye daan fekk mag ñi toog foofee ci Mbàkke Kajoor di waxtaan mën na déglu leen ñëpp ne keroog mu ne suñ borom day wax ak malaayka yi mi ngi ci pays sàngam déglu leen ko ñëpp na xeraw bu ñu noppee mu ne suñu borom nangi malaaka ko waroon nangam ak nangam la doon wax ak ñoom ba ñëpp di yéem ak yeggam Cheikh ne Adama Guèye yëggul ci yàlla waye da tolok waxi kaayu suñu borom yi ba suñu borom di wax ak malaika yi mu diko deg waye rak rakk ja ma baabu géy ma yegg ci yalla ne ja mo babu koko yegg ci yalla kon jege gum se jege yalla motax mu xam ni yegg ba seen jere wa daan di len sonal ñom mag ni di len wax ne dama yegg ci yalla ba fi ma tok ci ñaarem fi laay toog di fëgg sama loxo bi ci aras ngeen deg kandang-kandang ni ñu ne ko defal ma gis mu mu def ni loxo ba ñuy seen muy dem ba séenatuñ ko mu naan kang kang ñuy deg kang kang bi ko waxe Ibra fal mu ne jambar la de way man de man na la raw lol ñu ne ko ana lo man mu ne man lal borom aras la man lal borom ñu ne ko def ko mu ne se ngi ñew ba serigne bi genn tok ci toj gi mag ñu wër ko Cheikh Ibrahima ñew ba tollok serigne bi tek loxom ci kalam yi kat daal ah ana sama nar ba lama ko waxon def nako ko <laughs> ko dana la gën a dégg sëriñ <laughs> dana gën dégg Cheikh Ibrahima bi mu ñëwee ci la yoon murid jant bi serigne bi yor yor bi serigne bi génnee wax né rasulullah sallallahu alaihi wasallam dik na xamal ne ma képp koo xam ne jàngu kese moo la fi indi woon mm. seesit foo ko mottali képp koo xam ne bëgg yegg ci sa borom moo la tax a jóg topp ma yoon yu ma sant mooy ak murit mm-hmm. mooy yoonu yitte ca yoor yoor boobee la sëñ Adama Gueye ñëw euh, ànd ak Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina mm-hmm. ba mu duggee Mbàkke Kajoor rek la ay cëram ndam mm-hmm. muy raam ba yegsi ci sëriñ bi jox ko boppam ne ko nag nafsi jébbal naa la sama bopp àddina ak alaxira sëriñ bi siggi na ko loolu lu mu doon mu ne ko damay topp tànk seen borom subhanahu wa ba mu sa ci yow ma bëgg am yàlla amin wér bu kenn dootu na table sëriñ bi ne ko fii nga ma fekk loolu ma fi bàyyi yàlla rek ma tax a jóg bu ma xamoon nuñ ko amee am naa ko ba dem bu ma xamoon fu mu ne doo ma fi fekk seetlu na ko man ne damay topp ab tànk moom dugg ci kër gi soo ma wonee fa tànk bi génne ma topp ko yàlla rek ma tax a jóg sëriñ bi xam ne kii neexut a nax hmm. sëriñ Basiru nee na dañuy wax ba jóg taxaw wax ba toogaat wax ba jóg taxaw wax ba toogaat <laughs> amuñu lu dul sëriñ bi dugg ci kees génnaat génn fa sëriñ woo xam ne mboolem ñu nekk ci jataay bi keroog lañ ko soog a gis teg ko ci loxo ne sa boroom nee na sa jumtuwaay ngoo sëriñ bi bëgg Cheikh bi bëgg a dem mu woowaat ko mu ñëw mu ne ko Ibrahima fekk boobu sax yab saxaant lañ koy wax mu ne ko ndax daf ko anoon turu mu ne ko yab saxaant mu ne ko yab saxaant mu takk samat të ko yëf sa xànc mu takk sa mat mhm. waaw waaye nañ dellu ca cosaan la nañ nas lay wax ibrahima fekk moom ibrahima lañ ko tudde woon waaye nag boobu ay moromam ñoo ko tudde woon yëf sa xànc mhm. waaw ndax da doon maanaam da jàmbaar joo xam ni mhm. foo ko takk weesu bi waaw boo ko gisee nag sax da nga koy xaw a xeeb ci melaw ndax njoolaay beeg nangam waaye waaw lu mu dugg mu sotti waaw ñu tudde ko yaf sa xànc mu takk sa mat waaw bi ko sëriñ bi waxee na ko sama sama dafa mel ne sama sama pas-pas daa nuroog sa sama pas-pas ndax pas-pas bii nga fi indi day eh, sama bos rek la may fàttali ndax man day bi may wër Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci tegagul loxoom ci sama ko ci sama mbagg naa ci fu ma ko fu ma ko namm làmb ko fa duma ko fa fekk ba mujj ma xam ne li ma bëgg jarut may sonn mën naa ko am ndax sama pas yegg na ci ne wóor na ma ne tanka mi te mhm. ko ci société de ci asaman si daana ko tim mhm. kon digënté ñaari barab yoy mu ne lu bëgg sama sama digg mu warna ko mëna am mu mhm. waral dem fenn na may dey sama pas sama mooy ki may wër suma ma ba fekk ci barab ñu ne ma fii lañ ko denc bàmmeel la ma ngi ni dana sax ci ba mel ba ba limi wut sama borom am ko dal nako nak lima bëgg moy def ko dey lo fi amul ci yow la mu ne ko man de fii lu ma fi jëlul dafay amul sëñ bi ne ko bul séentu ku la yaral aw ak satala ndax man àdduna tax maa jóg ku àdduna tax a jóg booy ba nga seeti keneen sarafaal na ko lu ma fi am nañ ma ko dencal ba ëllëg foofa laa ko soxlaa nee na doom lu ngeen gis ci sama mbir keroog ba ma sukkee fa fa kanamu sëriñ bi jox ko sama bopp ba ma siggee taxaw faxasiti woom yi nawoon suuf si taxoon ci sama woom yi faxasiti woom yi lu ngeen gis sa mbir moom waaye sa mbir la ma dégg ak sëriñ bi ëllëg la dara du ko ci gis lu ngeen gis ci mbiram Cheikh Ibrahima lu mu rëy rëy nee na faxasiti woom rek la faxasiti woom rek la su ko defee li tax man leen seen dig gi dafa rëy mooy sëriñ bi ngeen fi indi ndax fi ne du sëriñ bi woor du sëriñ bi dem màkk du sëriñ bi jang alquran du sëriñ bi yi jiitu na fi sëriñ bi lu yag mbollem ñun ñi won gannaaw sëriñ bi ñi ngi ci dox ñi ngi dox ci yi kon yoy du sëriñ bi da dënd ak sëriñ bi rek ñu bari nak dañu bëgg jël njabootuk sëriñ bi ci delo leen ca yee góor bi moy cheikh Ibra sëriñ bi moy yi mm-hmm. manam bagage bi mooy xaside yi ak Cheikh Ibra loolu boo rombee sëñ bi dootoo ko gis fay fay fay fay fay fi mu ne Cheikh amut feneen fudul fi sëriñ bi kudul sëriñ bi amoo ko kudul sëriñ bi amoo Cheikh Ibra fudul fi sëriñ bi Cheikh Ibra amu fa xaside yi kudul sëriñ bi amoo leen fi mu ne yonent bu buñ la laajee lu leen rasulullah sallallahu alayhi wasallam gëne rawe leen ko looy wax du ab téere de mm-hmm. da leen a téere waaye am na ñuy téere mm-hmm. du ay saaba de da leen a gëni saaba waaye am na ñuy saaba am mm-hmm. na lu mu leen gëne lu mu am lu benn yonent amul mooy xaadim ca la tàmbalee ci Adama abul bashar ba ci isaa mi mujj mii benn yonent bu ci am xaadim amul rasulilaay rek am xaadim loolu la raw yonent yi garaat bi yonent bi gën a yonent mooy sëriñ bi waaye garaat bi sëriñ bi gën a sëriñ si mooy Cheikh bi la dalee ci Seydina Aboubacar mi gën ci jullit ci ki ci yées kenn ku mos a taxaw di woote jëm ci yàlla ku am yuró faal amul sëriñ Tuubaa lu mu rawee góor ñi mooy Cheikh Ibra koo xam ne sa ndab bi Ibra néew ci amoo sëriñ Tuubaa waaw koo xam ne duyaale woo Seex Ibra na la leer na amoo sëriñ bi man ngaa yor ci lislaam nag lu daal sam xel waaye ak ci ci murit moom bu ci Seex Ibra newul dara newu ci bàmba ji boo ci génnee Seex Ibra dara desu co boo xasee indi Seex Ibra dara desu co Seex Ibra sëriñ bi ku yàlla taw fexal mun na ci yow sant ko bay maxtaar sil moo njëkk a jox boppam Serigne Souhaïbou Mbacké muy taalibeem bi jiitu moom ma nettali ne dafa am bés mu ànd ak sëñ Souhaïbou ñu jóge tuuba kër sëñ Modou Moustapha Daarul Xudoos mm. jëm Mbacké boobu tali amut aw yoon amut tànku rek nee na ñuy dox ba yegg si Daarul Manaan nee na sëñ Souhaïbou ne ko nañ dallu ñu toog ci garab neena buma bu ma nañ dallu damay set garab bu feex ma ñew tok ci garab ga talal sama tank señ sooy bu ñew tok ci ay poojam jël mu wër ko ci ab dënnam moom doon fils bi señ sooy bu tok ci ko neena bu dallo ba ba noppi sëñ bu jogat sol ay dalam neena ma jog top ci nee na ñaareelu noppalu gi bi ñuy tolok daaru la ndax neena lima xamal ne daaru la neena señ sëñ bu dafa toog wër ci sama dënn mi dal na ma mané ko mbakke mu ma seng bi may sende day ñu lok barabu bàyyi seexanta bi ñay ma def ni ci seigne cheikh bi nako waaw moma moma de kon de tollu nañu daaru sal li ñu ci digg ak bari wu ñu kon de lañu yegg ay buñu bu ñu jógatee du jar noppalu nee na ko maxtaar mu ko mbakke mu ko barab barab bee ñu denk bàyyi seex bàyyi seexanta du xam nga ni mo doon néeg seigne bi mag bi mu ne ko dégg naa ñu di wax de hmm. mu ne ko ca buntu buntu keroog takkusaan nga de sëriñ bi toog na fa bés kërug safaan bi muy sawara fekk ko fa ak jooy yi metti sëriñ bi ne ko ana la xew mu ne ko sama borom dama bind maak sama nawle nga di ko jàppale di ma sot sëriñ bi ana noonu nu mu demee mu ne ko ajjana de mi ngi sigarawu ci sama kaw ndax bi nga dikkee ba tey xelam dal na ci ne li ko yàlla santoon dana sotti te yaa ko ci dimbale man nag dox nga sama digg sama liggéey yoon yu ma gis nga jaar ci bu wéyee man ci gënt la jëm ci lima yalla sant ci la yaakar ngërëmam ma bëgg nga dimbalé ma ba lama yalla digoon dara bañ ci bañ ci yalla digoon na ma né dana danaa fess del ci diggante nit ak jinne wala am jaana ma min al jinni wa nas ci lolu kat mel na ne bëgg dox sama digg ak mom sering na sëriñ bi ne mu ne ko doxal boole naa la kuy di kuy dingat Cheikh Ibra Fall mm-hmm. loolu ci làmmiñu Baye Makhtar Sylla laa ko nangoo ci nen sëriñ Coy moo ko nekk te bi mu koy nekk ñu ngi toog ci kaw wéeru ci mm-hmm. keneen kuñ ko waxoon ne mooma sax nga jàpp ne rek mm-hmm. ak mu ritee a tax waaye sëriñ Coy bu lañ wax te da koo firndeel ndax firndeel loolu moom sëriñ Coy bu ndax doomam tey jii ma nga wuyoo Fall kër siñ moo tamit Fall te ku ñuy wax euh, sëñ Dame Touré bokk ci waa Fulki yi mooy magi sëñ Dame Touré baayam ci mag ñu ñi toppoon sëñ bi la bokk këram ak kër sëñ Chouaïbou dafa mel ni boo génnee sama kër gi rek wëlbatu këram maanaam ñooñu ñëpp mag ñooñu ñëpp sëñ Chouaïbou la daggal ñu wër ko gan ku ci kër gi sëriñ Chouaïbou booy joxe tur wa yabal ko fu tudd si sëñ Dame Touré moom am ta ab taawam la sëriñ bi tudd ñi ci des ñëpp da doon yow la seen blaat ak ak ñoom sëñ dan bisaak ñooñu ba bis ñu yëgal ko ne ko soxnaam am na doom mu ne ko suñ ñee ëllëg la nag moo ko wax nee na ca tàkkusaan ma jaar fa jóge dalal wax ko fàttali ko sëriñ bi mu ne ko comme baax na buñ xëyee ma nekk nee na ñu xëy di nekk ku sëriñ a yebal mu ne jekki-jekki oto bi gaare sëriñ bi wàcc ñoom mm. accès ñu bëgg ko dugal ci biir mu ne déedéet baax na ñu tegal ko ab siis ci biti mu ne nañ indi gan gi mm. ñu indi ko mu tuddee ko Cheikh Ibrahima Fall daal na tur bi kat daa rëy ba mënu ma ko yónni kenn maa koy doxal sama bopp mm. hayla hayla la ci la bokk ñàkk gi ñàkk li tee yi xam ne ci la bokk nag mooy day bagage yonent bi sallallahu alayhi yi mu dencaloon boppam ci baxaare bis fi ne xaside yi sëñ Bamba ak Cheikh Ibra mm-hmm. mooy alali sëriñ bi mooy gànjaru sëriñ bi mm-hmm. mooy tiitaru sëriñ bi mooy garaatu sëriñ bi mooy baatunu sëriñ bi mm-hmm. fi mu ne lu dul loolu rek hmm. noo jullit yëpp ko bokk hmm. loolooy suñu alal hmm. eh, dama koy faral di leeral ci ne sëñ Ibrahima mii su ko Murtala joxoon mbuubam su mbuub mu yàgg koo indi ci daara ja saa bu ko solee rek xel yi dem ci Murtala ndax xam guñ xamoon mbuub mi ci Murtala tey mu jox ko Ibrahima ba bu bu solee ba noppi ne liikat kat mbubu mortala la woon ñëpp dinañ ne wax nga dëgg kat ndax xam nañ ne mbubb mi mortala daan ko sol mm-hmm. loolu mooy julli yi ci yoon wi mm-hmm. koor yi ci yoon wi alxuraan ci yoon wi alaaji yi ci yoon wi fi mu ne mboolem ñu bokkal lislaam nañ sëriñ bi loolu mm-hmm. bennoo foofu la yam ana fu njuumtali mooy mbub mi mortala ñaw la woon bëgg ko ibrahim ibrahima ñëw këram di dox ci sëriñ bi ba ba ab jël dikkal ko fa mu ko dencoon mu rocc ko jox ko ko ku fekkul ba mu ko koy jox bu ko sawee doo xam ni murtalaa ko ko jox su ne murtalaa ma ko jox nag yow boo gàtteem xel te xam li murtalaa yor ci ci gaalam yi mu dàgg sol di ko indi daay da nga naan bokk ci mbubbi murtalaa waaw day wax lii bokk ci ndax lii murtalaa mosu koo sol fi ne bu ngeen dégg ñaan ku dul julli daa nga ndax ñoom li ñu maanaam yére yi Rasulullah sa daan sol moo ne ci téere yi hmm. moom lañ jàng yooyu nag fu maanaam fu ñu gisee lu jëm ci Cheikh Ibra bokkul ci lañ jàngoon ñu ne bokku ci fekk sëriñ bi daa fonk yonent bi daa fonk sëriñ Tuubaa ba du ko may lu mas a sol <coughs> gars yi ñuy sol ay ay rapide la sëriñ yonent da koo sol ba mu furi mu may leen ko sëriñ bi nag yi mu ñaw yu yees kenn sologu ko yooyu lu jox sëriñ Tuubaa yooyu mooy xasida yi mooy Seex Ibra mm. moo tax fu ko sëriñ bi solee ñu xamul sëriñ bi jàpp ne bokk ci mm. waaye yooyu yëf yi ndax yooyu bagage la yoo xam ne yonent da ko doon waajale bis sëriñ bi doy ko mu far ko ko jox fi mu ne ah gis nga yonent bi maanaam lépp lu mu war waroon a taxawee moom rasulullah sallallahu alayhi wasallam sëriñ bi doy na ko boo wóotal na ci sëriñ bi ku koy xaar dootoo ko gis fi ne li des ak moom ci jullit yi mooy bu ëllëgee suñ borom jox ko liwaawul hamd jox ko safaawatul kubra moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu taxaw di ko jëf fii ne ñëpp jàng nañ ko ci téere yi loolu weesu na li waawul am di ci loxol sëñ Tuubaa lay tegu safaawatul kubra tegu wa la wax maanaam ci loxol sëñ Tuubaa la sa waawul am di tegu ci loxol sëñ Tuubaa la safaawatul kubra di tegu bi moom leneen lay lijjanti ndax am na ko ko foowut fi mu li yàlla waroon a séq julli ji ëllëg di tàmbalee fii ci àdduna bu ëllëg loo xam ne yàlla war na ko sëq kub jaam loola yàlla délégué na ko sëñ Tuubaa ñu lu ngeen xam ci téere daa ngeen mës koo dégg ñu ne yàllaa ko moom moomatu ko moomale ko sëñ Tuubaa malakta ni tam leeka man laay selu an fihlihi nimal karimul maw ilo wax nee ki nga xam ne lu mu def kenn du ko laaj lu tax nga def ko ñu ne ah mu ne lum moomoon moomale na ko dégg nga li sëñ bi wax lum moomoon la wax loo xam ne suñ borom a ko moomoon sëñ bi nee na yàlla moomale na ma loolu tey taxul yàlla ñàkk ndax yàlla du jeexal ma nga ca leneen waaye fu ab jaam suñ borom waroon a féete ab jaam rek foofu sëriñ baa fa ne ku fi bàyyi sëriñ bi moo tax mag ñu naan wax ku dajul daam dajul ku dajul daam dajul waaw sëriñ bi rek kay sëriñ bi <laughs> waaw te seex bi nag mooy yoon wi jëm ci sëriñ bi dana wax ne ah, sëñ Bamba du aw yoon ab dëkk la sëñ Bamba bu deew yoon fu mu jëm man ñëw defaat bi maa yoon wi waaw Baye Mor Njaay tomb daan na ma Aliou ne ko Njaay mu ne ma lu Bamba deful lu Bamba bindul baaxul lu bi Ibra jëful baaxul mm-hmm. te waaw lu Bamba bindul baaxul lu Cheikh Ibra jëful baaxul waaw waaw daana ci yegg sax daana ma wax ne ma sax Aliou ma ne ko Ndiaye mu ne ma alxuraan matu rasulullah sallallahu alayhi wasallam matu ma ne ko déet bàyyi ma mu ne ma ah kay su alxuraan matoon xasida du dikk aw oh góor aw oh góor bu rasulullah sallallahu alayhi wasallam du dikk oh waxin la waxin la waaye eh, sëriñ bi maanaam koo dégg bu naan bokkaaleeg nangam daa xamut sëñ Tuubaa xam nga sëriñ bi du ko ñuy bokkaal daa bokk ca du ñun ñoo ko ci boole borom yëf yoo ko ci boole dama ayaati lil laahi la wax yàlla ko boole waaw du lu ñuy bokkaale ka bokk bokkal sëriñ bi daa bokk suñ borom wóolu ko doyloo ko far ko jëbbal yëf yi hmm. ko defee nag noonu doole sant bu baax xam ne yàlla dimbale nañu ndax ku sëriñ Tuubaa dimbale ba ngay dox dox yoonu Seex tey wut sëriñ bi ci xasida yi hmm. tegu nga ci yoon ndax kat mbooleem njabootu sëriñ Tuubaa gi li ci Cheikh Modou Moustapha hmm. Cheikh Mourtala foofu yi kenn ku ci amoon ci Seex Ibra sago amul hmm. ba ñuy wax ci diggante ba mu yàgg ci Serigne Saliou boobu suñ mën a amintàng liggéey ba néegam yooyee ba mu am coow yoo xam ne da mu génn da leen ne kuy wax da nga xamut waaye bàyyi Cheikh Ibrahima day daanaka daanaka mooy Serigne bi hmm. wax ju rëy la Serigne Abdoul nee na Serigne bi ak Cheikh Ibrahima day ni ma leen ko mën a misaale daa dina nii mboppam daa mel ni mbubb mii rek sëriñ bay biti bi Cheikh Ibrahima biir bi <laughs> ma firi ko man nag ne mbubbkat daamine yi ak bouton yi ci kaw lay ne mooy rafetaay bi waaye wurle yi ak ñaw yi ca biir lay ne ca moo ko téye mooy Seex Ibra waaye soo ko muree soo ko wëlbatee loola naqaral la nga ne kaw gee dàq kon yi ne fi jóg ay morsa nga yor ay morsa nga yor waaw ba bëggee jare si ñooñu mbubb bàyyi fa wurli yi ak womb yi kookoy Cheikh Ibra su ko defee nag ñu dollee sant bu baax te dolli ci rëbb bu baax te ba a réglu kenn war nañoo yegg foo xam ni buñ toogoon moom yàgg ñu ne am na luy ñëw ñu seet ko ci asamaan si muy waaxu bu jóg mu jóg ba ne cëpp ci suñ kanam ne ci suñ borom laa jóge ñu ne waaw mu wax ñu lenn lu wuteeg suñ poste si nañ ko ne seytaane nga mm. waaw maanaam sëriñ bi moom léppam leer na ci seera xam nga euh, boo demee ci jaalibatal maraaxib sëriñ ba ngi ciy ñaan boromam te lu mu ñaan suñu borom defal na ko gannaaw bu ko defee bu ko mayee xayra muraad ah, mu teg ko ci ngën gi yoon xoolal képp ku taxoo maraaxib ni ngay bëgg Cheikh Ibra ni ngay bay Fall kon ak bay Fall moy ngeen gi yoon mbolam yoon yi jëm ci yàlla ak bay Fall ci gën motax moo naar bu ko naan ko tarikhu woo xayra ngeen gi gën ci yoon yi moy yoon Cheikh Ibra da yoon wo xamne nak ne xej ji suñ borom yi rek la cey tek ay xejjam fi mu ne ni misaal mi fi ne ñun ñiy dëkk Dakar war nañ koo xam ndax fi ne ku bëgg a dem Dakar yoon yi bari na waaye yoon wi nga xam ne moom amul taxaw mm-hmm. dangay fay de mm-hmm. ay xeej maanaam ay xeej da lañ cay teg ku yorut loo fayee doo ci doo ci tàbbi mm-hmm. koo koy Seex Ibra maanaam sun borom mooy dimbale ab jaam teg ko ci yoon woowu yi jàpp ne mooy sëriñ bi daa dend ak moom rek waaye sëriñ bi Cheikh wax ne lislaam lu ñaata ponk la ñu ne ko juróom la de mu a ah bari na de sama yoonu waa ji dee ko ëpp moo ko gën a néew ponk yoonu murit de moom ñaari ponk rek la ñu ne ko faal ban ak ban mu ne ja ak ju ñu ne ko firi ko faal mu ne jébbul ak joxe mooy yoonu murit fi mu ne am murit fii ak jébbulu woo doo murit loo xare xare sëriñ bi bu lay gane seet lu ngeen mën a séqit doo murit murit moom day jébbulu boo dul joxe addee itam sa murit rafetul am murit day joxe fi mu ne ñaar yooyu moo mënta ñàkk ci murit waaye leneen lu ngeen mën a gis rek man naa ñàkk nag fi ne lu ngeen mën a gis lu mu baax baax mën naa ñàkk xam ngeen ne nun ñuy julliwuñu timis kon xam nga julli ñàkk na teewul ñu di murit Hmm? am na murit yoo xam ne cooway bari waaye duñu xëy mukk ubbi xasida di jàng teewul ñu di murit am na ñoo xam ne duñ jàng benn isibu alxuraan teewul ñu di murit am na ñoo xam ne fa suñu yéene aji màkka xalaatuñ ko sax xalaatuñ ko waaw ndax man nga faa faatoo ca ko fa faatoo ñu denc la fa waaw te luy tee ñu luy tee ñu denc ab murit Touba murit bi amee fu la war na koo sori wóorul su ko defee li kon yi ci des yëpp day gunge ak murit fi na xasida yi topp li muy baax baax day gunge rek alxuraan ji day gunge waaye li mënta ñàkk mooy jébbul ak joxe loolu mooy yoonu seex Ibra ju ja mooy su ko defee ñu xam ne taw eh, tawféexi sëriñ bi daal mooy bëgg Cheikh Ibrahima Fall yor aw melam di ko doxe te wéttali ko xasida yi foofii loolu mooy ñaari tànk yi nga xam ne ku koy doxe maanaam nangay ngay xam ne foo teggee sab tànk yaa ngi ko teg ci tànk Cheikh Ibrahima foo teggee sab tànk yaa ngi ko teg ci tànk Xaadimu Rasul ñu xam ne nag jamono ji coow li ak wax yi bari na mm-hmm. waaye Cheikh Rafal dafa wax ne doom ku bëgg a tiim say say kem da të waaw dam ko tëwul du tiim kenn du tane kenn waaye doom tëy de tëggi day ànd ak teggin waaw tëggi nag day ànd ak teggin de daan na maag sëñ lu nu am tëy ñu ko may dama të samay bokk sëñ Bamba të ay bokkam ñu daje waaw déggoo moo waral àdduna sépp dégg ñu daana doom ñaar suñu àndoo déggoo ren ba déwén ñëpp dégg leen mhm. ak suñ bamb dañoo déggoo waaye sëñ bi bu tëwuloon ay bokkam du leen tiim du leen tane Cheikh Ibra bu tëwuloon ay bokkam du leen tiim du leen tane ba amee ci mag ñi ndax Cheikh Ibra gannaaw bi mu defee li muy def fi mu ne euh, Cheikh Ibra Fall li coow luy bari bari ñetti at la liggéeyal Sëñ Tuubaa waaw daf ko ne Moussa Moussa yonent yàlla Moussa day moom ba mu ñëwee ci yonent yàlla bu jébbalu ci moom Suhayb def ko ne juróom-ñetti at nga may liggéeyal. salaamaaleykum aleykum salaam. soo ko am sama ngërëm. waaye nag soo ko mottalee fukk moom danaa sant dinaa la ci Rafal mom bi mu ci sëriñ bi sëriñ bi daf ko né fan wéré at nga may liggéeyal li nga bëgg ci wan fan wéré at nga may liggéeyal soo ko am sama ngërëm ci Rafal ne nang asaman ci nonu muy def sëgg xol suuf da da ko maké fan wéré at nga wax mu ne waaw mu ne ko fukk at yu ne dinaa ko dina ko liggéey ci baat ko ko Cheikh Rafal waaw da ko ne fan wéré at nga wax mu ne ko ah nangu at yu ne liggéey fukki at yu ne dinaa ko liggéey ci mat pasteefu Cheikh dogom dogoom nga tax na at mët juróom ben wer la ca juróom ñaari wer la ca am Cheikh ñaari at ak juróom ñaari wer la liggéey señ tuwa ngërëm wacc daru salam hmm. ñu tek ci ñenti wer ak ñenti fan señ Moodu Mustafaa gëna jamono keroog ba nga xamee ne Cheikh Fall ngërëmal borom war naa wàcc ci mom sëriñ bi da ko woo mu ñëw daal yónnee ci moom nag bu ngeen demee ne Ibrahima su su su tànk dogee su suuf seddee na ma fekk ci bayti sàngam fa laay defee xalut lii ma lay wax nii Baye Mor Ndiaye tomb del moomu ko nettali ci Porokhane fekk booba danoo toog ba xalaat ne bis bi sëriñ bi gërëmi seexir day waras na koo xam mu jaral jóg di ko wër dem nañ ci ku ñuy wax Baye Baye Moon Njaay tab bi dem nañ ku ñuy wax Baye Deya Fall ci gébb dem nañ sëñ Moon Njaay yendu naan wër nañ ci mag ñu bari ñu bari ñu bari ba ci sëñ Ibrahima Thiam ci njaareel waaye kuñ ci dem rek nee na ay la yëwoon loolu xaw ma ko ba ñuy wax ba waxtaan ceeg ba tudd ko Baye Mor Baye Baye Mor daal ne loolu de Abdou Sakkour mii doomi Seex Ibra sax xamu ko waaye man de Cheikh Ibra dimbal na ma ba tàbbi na sama nopp li ma ko may nag sëñ ma sàmma Njaay sëñ ma sàmma Njaay da doomi nijaay Cheikh Ibra baayam ak maam Seydou Njaay ñoo bokk lépp sëñ ma sàmma Njaay waxee Cheikh Rafal da ko ngërëmoon da ko gërëmoon ba noppi des ci ay bëtam mu xam ngërëmal yàlla bu ma saan dugg ci daara ku mu xool ba ne la wuy Ibra Faal rek boo demee ci Cheikh Ibra mu gërëm la nee na may bés ma Masamba Ndiaye ba guddi nee na sëñ Masamba Ndiaye ne ma Mor Ndiaye ma ne ko faal mu ne ko ndax xam nga ban bis la Cheikh Ibrahima jébbalu ci sëriñ bi mu ne ko déedéet mu ko ñaar fukki fan ci weeru koor ko ndax xam nga ban bis ko sëriñ Tuubaa gërëm mu ne ko déedéet mu ne ko fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru gàmm di talaata dëkk bu ñuy wax Daaru Salaam daal ne lii ma leen wax kenn du ko dindi fekk war nañ ci lu bari keroog ba ñu ñëwee ci sëñ Basiiru Faal alxuraan daana daana ci sonn lool bañ ko ko leeralee def ne man de wër naa ba sonn ku ma laaj xamu ko mujj ko ma mujj ko di ko laaj sama borom ba ñu xamal ma ne ma da dem mbàkke mbàkke euh, mbàkke kuru mbàkke dafa xalwa nee na def naa ko ñett ñetti fan kuru mbàkke nee na ca fan bu mujj ba lañ ma indil bis bi ba wax ma ko waaye nee bi ma jógee ci fajar gi la ca des daf maa yëfat juróom rek la moo nekk sama xel waaye wax nañ ma ko moom ba mu leer ma ci guddi gi waaye fàtt naa lépp waaye juróom-ñaar yi moom li mu juróom-ñaar yi fàtte ko daal di yëkkati njegeñaayam euh, nu mu tuddati njegeñaayam génne fa fukki doomi guro ak juróom-ñaar daal ni lii maa ko sax war te fukki fan ak juróom-ñaar la ci ci ci ci weeru gàmm keroog dafa àllu lool hmm. fukki junne ak ak ñaar ak juróom-ñaar la ma jox ne ma bu ma leen naa ko jox si Moraminto te bu mu ci feeñ boobu sëñ bi joxe ci ndigal waaye bu ci feeñ bu mu yëg sax na jaar naa fa mm-hmm. euh, loolu bi mu amee Baye Mor nee na sëñ bi wax na ne Cheikh Ibra na ko fekk ci bayti sàngam daal di yónnee ci sëñ am sëtu jaxate mu ñëw mu ne ko am sëtu mu ne ko mbàkke mu ne ko gannaaw bu ñu sëlmalee gee nanga ma fekk ci barab sàngam mm-hmm. ci nek sangam fa lay def xalwatu na ngay wërne bo tay jang jàng señ sëñ bi noonu def daan fekk mag ni ko xamni moy mooy jang jàng diko yëkëti nank mu diko rib mu neex señ bi ne ci biir def ay lawraat señ am sa di di jang alxuraan di wërne bi di jang alxuraan di wërne mu yàgg mu dégg ko yëngu bam mu mo gis muy Seex Ibra mu taxaw ci buntu bi nuyo señ bi ne bismillah señ am sa nee ma wacce sama kàddu bu ñuy wax ma dégg ko tay limay wax serigne bi na ko deg ndax xaw lu Cheikh la dugal ci waxtu yi neena bi nga xamé ni loolu amna neena nee na bi Cheikh Ibra duggee maa ngi deg serigne bi Ibrahima dik nga muné ko waw muné ko togal ci lal bi neena bi muy tok ci lal bi ma ngi deg xex ji nga xamné Cheikh Rafal dawul werante digal serigne Tuubaa serigne bi tok Cheikh Ibra tok ci lal bi xamna ni sax ku mel ne man sañ naa wax ne boo demee mbokk kaamil yaa dend ndax gannaaw sëñ bi ay kaamil daan teg ci lalam moom mm-hmm. ci tegee ceeb bi ne waaye waaye bi ne ko Ibrahima dikk nga mu ne ko amu ne ko na nga yëg ne sa borom gërëm na la oh. na man mi sant naa la Ibrahima mu ne ko faal mu ne ko yaa tax ba góor di liggéey alalam ba mu ye ba mu ba mu lew ko mu jox ma ko di ko mottali ko ay mm-hmm. yaa tax góor dajale ak njabootam ñëw jox ma ko jébbal ma seen seen seen seen nos ñoom ñëpp ànd ak ñoom di ma liggéeyal di ko sofor la ay ngërëm ba ne ko Ibrahima na nga xam ne samam xel demeetee ci yow ngërëm jóge na ci man tàbbi ci yow ci ma koo bañ sam xel yow fu mu demeete ci man ngërëm jóge na ci man tàbbi ci yow ci mu sañatu ma koo bañ nee ba Cheikh Ibrahima attanatul ngërëm yi Cheikh Ibrahima xaaju di génn naan sëñ Bamba damaa génne sëñ Bamba damaa génne sëñ Bamba damaa génne nee na sëriñ bi tamit daal di aalu daal di am nee na boobu fekk nekk maanaam nekkatuma fi <laughs> ma ne ko mbàkke mu ne ma bisimilah nee na ma agsi mu ne ko rëdd laal laay agsi na fi nee na nga wax noo ko bëggee ñu defal la ko moo ko <laughs> Cheikh Ibra bokk génn guddi gu ñal gërëm sem na ko man ne bi ma lay liggéeyal amoon naay bëgg amoon naay xemem téef ba bi may dugg gi dañ mbàkke amoon naag bëgg waaye bëgg gu ma amoon bëgg gu yees wutu na ko fi ba lekk ko te mu ne am surtout am na lu si bëgg gu boobu gu yees googu mu ne ko Cheikh Ibra mi fi génn dégg naa li nga ko wax ci lu mu am yaa ko ko defal mel ni moom rek laa bëgg nee na sëriñ bi daf ko woon ginnaaw ab diir daa dul ko waat ne ko am satu mu ne ko mbàkk mu ne ko gëneen bëgg goox gudduloo man manes na ko waaye Ibra Fall mënees ko Ibra Fall na fañ ko sànni góor yëggatu ko mel na Ibra Fall faat na ndax Ibra Fall kat am satu li mu def as gor sañu koo digal moromam Ibra Fall dafa bàyyi yàlla mi ko bindoon bàyyi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mi ñu bind ko bàyyi ndeyam mi ju ko juróon bàyyi baayam bàyyi boppam bàyyi bokkam loolu nag gor soo ko digal moo ci la waaye maral naa ko boromam maral naa ko rasulullah sallallahu alayhi wasallam delloo naa ko ndeyam ak bàyyam delloo ko bokk ay bokkam delloo ko ñu gën i bokkam <laughs> waaye bëgg goo am gudul googu nag am sët mën na fi mu ne ko kon nag gannaaw loola faat na ma sa jëmm ju tedd ji nga xam ne moo tax kuy sonn di sonn xam naa àdduna kenn du fi sax bés dana mën sa ñëw nga faat nga nga làq suñuy bët waaye xam naa ne yow doo ko fi ko foo mën a nekk nag mën naa lay gis bu ma la soxlaa mm-hmm. su ma waxee nag ma su ma la nag ma jox mu a ko am sa defal nañ la ko sëñ Amsatu Sëriñ Fallu daana wax ne xaaral ma dem ci sëñ Amsatu mi mi gis waayam ji laaj ko nangam ak nangam ba wax ko nangam ak nangam mm-hmm. am Amdi Ndiaye moom sëriñ Baara njaay mm. moom ma nettali na ma dem naa kër sëñ Amsatu Jaxate di ko siyaare ji nee na bi may bi may dugg ci kër gi maa ngi taseeg ñaari gendarme ñaari gendarme yi soluñu seen i mbaxana dañ koo bokk nii <coughs> nee na bi ma leen nuyoo leen nii rek fayuñu mm-hmm. na bi ma nuyu ko ne ko jaxate mu ne ma Ndiaye ne ma Moustapha ma ne ko jaxate mu ne ma tase woog ñuy nuru gendarme ma ne ko ah kay tase na dañ koy nuru rek waaye duñu moom mm-hmm. naka ñaari malaika yi yëkëti jant bi mm. ñoo ñëwon di ma siyaare ñom nga tassel non. noonu del mm. na fa yoon wo xamni dama ko nuyu ba nopi nee na mu jël kafteer bi xell ci ab kaas te ma nga fek kafteer bi tegu ñaari kaas tegu mm. mu jël ko xell ci ab kaas jël kaas bobu sotti ko ci benen kaas jaxase ko ba neex ko mu jox ko ma am barkeelu nee na barkeelu mënoo ñaari kaas yoy de benn bi ku tedd ki ci do naan kafe léegi ci mu sëriñ mag kon la sëñ am sotu ñaanoon sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa defal te loola kat suñu am surtout lu mu bari bari daraja mi ngi ko amee ci bëgg gi mu bëggoon mel ni Cheikh Ibra Fall bu ko defee ñu doon la sant yàlla bu baax xam ne lu dul Cheikh Ibra day nuru sëriñ bi waaye du moom lu dul xas yi tamit jotul ci sëriñ ndax fi ne damay wax ne sooy jàng xaside yi sëriñ Tuubaa yi ba mu yàgg waxtu julli jot nga teg xaside yi dem di julli ci nangul ne jóge nga ci lu baax dem ci lu ko yées sëñ Tuubaa ko bind de moo wax ne doona kitaabati ibadati ma am maanaam mboolem xeeti jaamu yàlla yi yées na sama xaside yi la wax wajal madaa'ihi lahu wa salawaat mm-hmm. fawqal ibaadaati mm-hmm. maan wa dahawaat mboolem xeeti jaamu yàlla yi ngeen dégg mm-hmm. ak xeeti ñaan nii sëriñ bi nee na sama xasida yi faw xada leen wajal uróof yi fawqa kul amali saloo ala wax lépp lu ab jullit di def suñ borom di ko ci bindalu tiyaaba xasidaa ko gën du mën a ñàkk nag ku ca nekk bu waxtu jotee nga jëfe ko ndax farata la waaye nongul na nga wàcc rek dem jëfe dara de boo yëg jotee nga yëgaat waaye xasida gën lu dul xasida ne xasida gën lu dul xasida nag noonu la kuy dox ci xasida yi gën a ku doxul ci xasida yi ki bind xasida yi moo gën ci mboolem bindkat yi ki tax mu bind xasida yi moo gën ku ñu bind ñiy jàng xasida yi ñoo gën kuy jàng lu dul xasida loolu maanaam day mbiram sëriñ bi bokkul ak régal yi fi suñu borom tegoon ñu bind ko ci téere yi yooyu mi ngi ci téere yi ba tey waaye leneen daa xew mm. ci suñ borom maanaam <coughs> borom sañ-sañ la mm. maanaam lu ko soob def naa ba kër dafa toog jàkk ji di ñaan di tuub bëy jooy ko def yëf soxna Aysa ne ko boo fàtte man fàttewuma yonent bi salaa salaam bi muy leen fukk yi war a dem ajana yow la jiital ci asratul mubashara nga bokk mm. ñi ñu bëggaloon ajana yow ja nga bokk loolu daal daal xel na daal mu ne ko am da nga koo fàtte mu ne ko fàtte wu ma ko déedéet maa la ko gën a fàttaliku man ñu ko waxoon waaye ki ko waxoon dafay newatul ca ka ko waxoon mu de ko def borom sañ-sañ boo xam ne lu ko soob def fi ne yonent bi newatu fi ba di ma xamal fu yàlla toll te yàlla sañ na caa génn ci du ko yëg su ma doyloo ne ci laa bokkoon fekk yàlla génn na ma ja ba ëllëg musiba dal ma naay def naay def lim ma sant rek tey tuuba ko ba ëllëg su ma ci bokkee ma xam ne li ma waxoon def na ko ndax yàlla sañ naa wax ba ñëpp dégg ko lu wuuteeg la mu waxoon te dara ko ci fekk kon ku koy tënk ci ay ay wax ki bind xamoo yàlla ku koy tënk ci ay wax ki bind xamoo yàlla sëñ moon bay Cissé moom wax ne ma Murid Jóob kuñ dem ci ku kuñ denc ci bàmmeel loolu la malaaka yi laaj bu ñu agsee ma ko ah dañuy wax ne xaw man rab bu ko xaw ma de mun ma ah, loolu xew bu yàgg hmm. wallahi al azim mu ne loolu xew bu yàgg mosu ma koo dégg ma ne ko mosu ma koo dégg de li ñuy wax léegi mu ne ma man seexu ko la ñuy wax hmm. ne ma loolu keroog ba ñu dencee seex na Amadou Tidiane keroog la xew yi keroog ba Cheikh na Amadou Tidiane génne àdduna ñu denc ko ba noppi hmm. nee na keroog la xew yi la suñu borom jox malayka yi laaj ci bàmmeel bu leen laajate kuy sa borom day leen laaj waye ne ma cheikh bo wax budul cheikh al khadim bol de dal seigne mon bay sem wax lo ne ma seigne Abdou Aziz dafay ñew ma jox ko sugur su bari ne ko yéen suñu seigne ci def ngeen ci def ngeen def ngeen ci yoonu tidiane lo xamne ndax fi ne Cheikh na amadou tidiane bu wàccoortoon aduna du dal du dekk ci benn dekk budul dul Tiwaawan du dalal ku Alaaji malik ndax lim ko defal kenn mësu ko ko defal mu ne wax nga dëgg mu ne ko da ngeen mel non rek ndax suñu mu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu dikon aduna tuba la jëm mu ne ko mu ne wax nga deug jox ma loxo waaw waaw waaw dafa wax nga deug jox ma loxo nee na lu njëkk la tax mu nangul mu jili waaw waaw lu njëkk la tax ndax ku nangulé da nga nanguli waaw su ko defé nak yoy yeb ak cant yalla la xam ne ah, sëriñ bi dal taw fexal nañu tawféex gi ñu tawféexal hmm. mooy xiir gi ñu xeer ci boppam ba noppi ubbil ñu suñu dënn yi hmm. Hmm. bañ mën a gëm sëñ Tuubaa ndax kat maa ngi leen di xamal ne gëm sëñ Bamba yombut de bari ñu juddoo ci yoon wii bari na ñu sant sant bu baax wii te wallaahi lazim gëmuñ sëñ Bamba ndax gëm sëñ Tuubaa mooy gëm léppam gëm suñu borom mooy gëm léppam mm-hmm. da ngay gëm yàlla mm-hmm. gëm téere yi mm-hmm. dégg nga gëm malayka yi gëm yonent yi gëm dogal bi soo ko gëm boo amee lenn loo cay linkaar rek sa gëm des na te bari na ñoo xam ne dañoo gëm ci sëriñ bi waaye gëmuñu sëriñ bi dañoo gëm ci sëriñ bi ay mbir gëm nañ sëriñ bi ak julli gëm nañ sëriñ bi ak koor gëm nañ ko ak i naafila gëm nañ ko waaye am na yoo xam ne moom at maanaam dañ ko ñëma wuti fi gisal waaye hmm. seen doxeen rek dangay xam ne ñi gëm ah, hmm. gëmuñu sëriñ bi ci hmm. te sëriñ bi lépp la boole maanaam sëriñ bi soow la ak ndox ak suukar bu ñu xasee boole naan rek baatu waaye mën a sutu leen xajale su ko defee nag nun ñi nga xam ne kenn ku ci làmb soxol xam na yow tax fi lañ la gëm sëñ Tuubaa yow am nga amal nga sëriñ bi beneen boru cant ndax day niru lu yomb waaye du lu yomb du lu yomb de gëm sëriñ bi ak léppam loolu yombut dañ koy dimbalee ab jaam mm-hmm. te eh, sëriñ Tuubaa du kenn kenn du moom du kenn xam nga sax da ngay dégg ñaan sëñ diw sëñ Tuubaa sëñ diw kenn du sëñ Tuubaa fi mu ne mboolem jabatu sëñ Tuubaa gi nga xam ne ñoo gën ci jaam ñi suñ leen dajale woon ñoom ñëpp teg leen ci benn balance doomi sëñ Tuubaa yëpp ñu teg leen ci benn balance benn jikko ci sëñ Tuubaa bu ñu ko tegee ci balance bi mu wat leen sëñ bi du kenn day loo xam ne nag euh, bu ko sëñ bi jaralee da koy jaral rek loo ci ci góobe baax dégg sax yu bari ñu koy wax waaye sëriñ bi du kenn kenn du moom fi na ne doomi sëñ Tuubaa joo gis doomi sëriñ joo ah, moo gën sëñ Tuubaa bàyyi doomi sëriñ Tuubaa yëpp ñoo gën sëñ Tuubaa Baye. Mm-hmm. li bàyyi sëñ Bamba yi baax baax baax bàyyi sëñ Moussa ko gën. Mm-hmm. waaw waaye na nga na la xam ne na xam ne sëriñ Cheikh Mbacke ak sëñ Modou Moussa Dieng ñoo gën sëñ sëñ Modou Moustapha Mbacke maam mm-hmm. fuuf. surtout sëñ Tuubaa bu ne moo gën bàyyi maam. waaw <laughs> maanaam sëñ Fall daan wax ne. yonent boo koy tàgg ba yegg ci àddunaan fa nga yem. waaye ñun sëñ Bàmba moo suñu àddunaan. maanaam ngëneel mi ngi dem ci sëriñ Tuubaa. fa gënante gi. sëriñ bi lu ko weesu gënatut. lu ko yees gëragul. sëriñ bi rek koy gën. waaw fi ne ñi fi newoon yëpp nag yu baax la. waaye baax li ko taxoon a falu. dafay fekkoon bon rek. Ah. bi mu agsee fekk fi bon fexe ba toxal bon toog di buur waaye bi ko gën yegsee ab dongo la tey. waaw lislaam nag mooy baax ak murit mooy gën. alhamdulilah boo dee lislaam boo yoree lislaam yi baax nga de waaye su murit dikkee ab dong nga murit ay gën. nun nan doon ay murit. Ah, te bu nu doon ay jullit. amiin waaw xam nga sëñ Modou Aminta mosut a nangu baatu taalibe. Hmm. ndax xam li murit di jar. murit rek. Hmm. ndax nee na ak ak taalibe moom foo dem fekk ko fa waaye ak murit li sëñ Bàmba indi mm-hmm. waaw su nan doon ay murit mm-hmm. yoo xam ne sëriñ bay doon suñu yitte mm-hmm. ndax fi ne suñu borom subhanahu wa taala li muy baax baax baax suñ ko yitte woon mënuñu koo am buñ ko amee mënuñu koo jariñoo ndax la Cheikh Rawaad waxal kenn ci mag ñi ba mu ne ko damaa bëgg a doon murit saadax mu ne ko mënoo doon murit saadax mun ne ko ah a tax mun ma koo doon mu ne ko ku bëgg a doon mursa da ngay bàyyi yàlla mu ne eh mu ne ko da koo jàpp na mu ne ko waaw mu ne ko foo mu ne cel mu ne ko koo ne da koo jàpp te xamul foo ko boo ko bàyyi lu mu lay metti lu mu kenn koo xam ne xam nga fi nga jàpp ci yàlla amul kon boo ko bàyyi lu mu lay wàññi hmm? te yàlla dafa ratax yàlla dafa ratax de jàpp ci sëñ Tuubaa moo gën a wóor hmm. barki dem sëñ Muntaxa wax na ko hmm. ñuy tëj fulk bi nee na woo suñu borom woo sëriñ bee ko gën ci ñun ndax li sëriñ bi man ci ñun yàlla sax mënu ko ci su ko Aliou Diop waxoon ñu wëree ko àdduna waaye si mun taxaa ko wax waaw murit nag foofu lay dee ndax maanaam sëriñ bi moom dox na suñu digg ak borom dafa wax ne jaawa sonaas wa maa fi ay dinaas ila rabbi naas fala maa wasilatu ila rabbi naas wa axtaani naf naas wa kafaani duruhu jéggi nit ñi ak lu ci loxol nit ñi dem ba ci borom nit ñi mu jox ma njëriñal nit ñi fegal ma seen lor nafa ani wa bi yan wara lool lay wax ji fi ne ku doon lijeenti di fanana ko yendu ba yegg ci yalla mu ne la wa goor lay wut nga ne ko sama njariñ lay jël ci dana la demal ma ngi ci Ahmadu njariñal dundé fi mom serigne Tuubaa andalé nako légui ku dem ci yalla ya xam demal waye bo yegge do fek sa ndax yalla du joxe ñaar yoon joxe na la sa bende. joxe sa sa da la yobante waaw boo maanaam boo ñëwee dañ naan Ahmadou yóbbaale na ko da ngay dellu siwaat ba ci Ahmadou soog cee jot ku demul ci Ahmadou doo jot si njëriñ moo tax mu ne wa axtaani laahu baabahu wala yamar bil baabi ilaa bi masiyati buntub suñ borom ba yàlla man la ko jox kenn du ca tabbi ca neexuma buntu boobu nag mooy Ibrahima Fall Baabul Muridiina sëriñ bi daa junj Seex Ibra fu ne fi mu ne ni alxuraan taxawee ci lislaam noonu la Seex Ibra taxawee ci yoonu murid fi mu ne alxuraan moo jàngale yonent bi mm-hmm. moo jàngale nuñ koy toppee mm-hmm. moo jàngale nuñ ko fuñ koy teg mm-hmm. Cheikh Rafal moo jàngale sëriñ bi moo jàngale fuñ koy teg moo jàngale maanaam sëñ sëñ euh, euh, sëñ am di xar dañ ci waxtaan ndeysaan mun ma Aliou ne ko Fall mu ne ma ndax xam nga su maam Cheikh Ibrahima nu mu taxawee ma ne ko ah Fall bëgg na si bëgg na si boo xam de mu ne ma de ñu bari dañ koo umpale ndax Cheikh de nun ñii ñuy tudd di ko tudd su ko umpa kumpa ci ñu la tàmbale ndax mboole sunu ay sëriñ lañ jàppe sunu bopp jàppe Cheikh ab seex te nee na fa la njum tegi tàmbale nee na nun njabootam du nuy sëriñ Cheikh du seex nee na Cheikh maanaam maanaam li ko tax a jóg mooy wane sëriñ bi nee na ab làmp nag bu leeree deesu ko gis la mu rek la ñuy gis noonu lay Cheikh la nee na xam gum xam sëriñ Tuubaa itam ak bëgg gum yoon wi moo waraloon nee na xam nga ni Cheikh la ni mel ci sëriñ Tuubaa kuy mbokkam teg na la barab teg nga ko barab ma ne ko waaw waaw mu ne ku mu nekkoon ku mu bokkaloon sëriñ tamit yegg ngeen ci wëlëre foo xam ne foo wëlëre yegg yegg nañ yegg nga fa ma ne ko waaw mu ne ma la dal dale ci sëñ Mamoor Jaara euh, ba ci sëñ Masamba may caat bi ku koo ci dégg Cheikh Ibrahima tudde ko doom ma ne ko kenn mu ne ma su mag si nag ma ne ko kenn mu ne ma loolu lépp xamu yoon a ko waral ndax bu ko tuddee woon ma maam Mor Jaara bu feree mu laaj ko su ko tuddee woon maam Thierno bu feree mu laaj ko su am Thierno nekkee daara muuti nag ba war di Cheikh Ibra yoonu Cheikh ñibbi Daaru Muxti yoonu murid yàqu nee na mu ne duma ko tudde kenn damay déglu sëñ Tuubaa rek kër sëñ Tuubaa ko fa feeñ nu mu tudd ko feeñ sama kër diw turandoom ba sëñ Modou rek sëñ moom sëñ Fallu feeñ sëñ Fallu Fall nga sëñ Abdoulaye Mbacke sëñ Abdoulaye Abdoulaye Fall Ndar noonu la ko toppee ba ba mu agsee ci sëñ Abdou Sakour nag mm-hmm. kenn Mourtada indi sëñ Mortala Fall nee na Abdou Sakkour moom dama ko sant sëñ Tuubaa mooy mooy oh. Sakkour bi laaj ak cant la waaw. su ko defee yooyu yëpp da ngay yëg ne Cheikh Rafal mooy yoon wi. waaw waaye fi mu ne. fi ne mboolem mag ñu toppoon sëñ Tuubaa. kenn ku ci ne yaa ngi dégg ñu ne màggalu Daaru Salaam mi ngi waaj. yaa ngi dégg suñu doom di ko wax. maam Cheikh Anta mooy borom Daaru Salaam. fi ne boo demee Daaru Salaam nee naa kër sañ Modou Mamoune ngi nii kër diwa ngi nii kër diwa ngi nii maanaam. Cheikh Ibra fan mooy kan fan mooy dëkkub Cheikh Ibra ah benn dëkk la sancoon muy gébb Fall c'est ba mu ko sancee da caa doomam da tànkam ku dul sëñ Aliou Fall Mbawar daanaka amoo fa benn doomam amoo fa am na ñoo xam ne mosu loolu lépp Cheikh dafay seey ci sëñ Tuubaa dafa maanaam dafa jë loolu lépp sëñ Tuubaa fi ne na nga yëg ne Cheikh Rafaal rek ay murit <laughs> ndax fi ne bu ëllëgee nit ak jinne ak malayka taxaw suñ borom na sëñ Tuubaa lii doon yoonu murit léegi konteetuma ko bokkutul léegi nañ teg li fi naw li jiitoo nag muy lislaam ku indi say bagaas yi lislaam ñu loo am jël loo amul loo ñàkk jëm kuy perte kenn mooy Cheikh da ah. nga gis mag mu wokk boppam ne ko man de xam naa doon naa jullee ko woor da <laughs> nga gis ko naan li ma doon jàng ci alxuraan li ma doon naafila ñëpp danañ fay ko ba mu des Cheikh Ibra mm-hmm. bu boobaa Cheikh Ibra rek kay ñàkk koo koy sëñ koo koy gëm sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa Cheikh Rafal daana sëñ Tuubaa daana seeral sa Cheikh Rafal ngëm goo xam ne fa la seere mën a yem ndax daana Ibrahima Fall du kenn Ibrahima Fall du kenn ndax moom de yegg na ci man foo xam ne